jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaan ak mbégte comme ñu leen koy defalee saa su ne fii ñu nekk tey day goxu làmb muy Medina ñu ngi Medina stade ginnaaw stade Iba Mar Diop. ñi marché bi nga xamante ni gars yi fii la ñuy defaree dàll yi ude yi ñooy defar dàll defal ceinture defal lépp tey ñoom laa fas yéene laaj combat bu mag ji dox ci diggante baay Baye Mandione xoyantaan Modou Lo war faa jàkkaarloog Ama Baldé nan la ñu ko gisee Adama Kaay. grand naa waaw maa ngi lay fay sëñ bi naa def. waaw lii ban la maa ngi lay nuyu. waaw ça va mbaa yaa ngi am ba. sab di kontaan si yéen waaw di kontaan si yéen lu bëri. waaw damay seetaan làmb amateur la di seetaan làmb wax dëgg yàlla di ko dund it aussi parce que loolu mooy loo xam ne ñun moom moom lañ am quoi. làmb moom suñu cosaan la suñu lépp la wax dëgg yàlla bu làmb jotee dañuy dem stade sañse lu neex yéeg seetaan xam nga. xool ki nga xamante ni bërekat la ak ku dul bërekat. Baye Mandione Baye Mandione xoyantaan. Baye Mandione xoyantaan. waaw loolu dafa nekk komba boo xam ne komba bu neex lay doon mais li may digal Baye Mandione na bàyyi xel ne ku muy bëreet xale la te xoyantaan dafa dafa jàng mbapat ba taay dox si mbapat comprendre moom instant su ma doon moom li ma koy conseil li may conseil Baye Mandione mooy na ñëw taxaw déglu boy bi. waaw. Eh, ki eh, le meilleur gagne rek. le meilleur gagne ki le meilleur. <laughs> jaajëf jaajëf garage. nee naa la bëggee na yaay. sant bu wér Ousmane Seck. Ousmane Seck. oui forom passé ah. waaw yaa ma gën. Baye Mandione xoyantaan. Baye Mandione xoyantaan waaw lamb ji war a neex a ngi noonu. parce que Baye Mandione mbër la même aussi xoyantaan mbër la lamb ji moom xam naa ne. bu fekkee amul dara lu ko gàllankoor te yàlla bu mu ko am. làmb a ngi waaw loolu leer na. koo ci non bàyyi ma ñëw laa bëgg mu daan parce que amateur la boo xam dafay bëggal supporter ma day ñëw ambiance te borom jàmm la tamit vraiment loolu tax xoyantaan tamit macha allah borom jàmm la mais ma ñëw laa faral man. bëri caare bi. Eh, jaajëf gannaaw loo def. waaye sant yàlla bu baax maa ngi sant bu baax man Tapha Lo lañ may wax. Tapha Lo waaw. bàyyi ma ñëw xoyantaan. bàyyi ma ñëw xoyantaan waaw xoyantaan da koy daan rek. parce que moo ko man xuy la ñu wax guddi guddi Saalum la guddi guddi Kañ Mor waaw dañ koy daan mag la instant ni jël na âge te instant yi nii moom ñu gone ko ndaw lañ da am loo xam ne dañ war a trouver fii Dakar waa Dakar xam ne Saloum mbër yu fa nekkoon ba tey ñu ngi fa depuis tey jii nii nii am ñu nekk ñoo xam ne ñoo ko a forox fuuf te ñun dañoo war a ñëw wane seen bopp fii guddi guddi kañ moor ni jaay loolu dafa leer nañ ñi waaw waaw kilifa gi kilifa gi maa ngi lay nuyu de waaw ñu ngi lay fay maa ngi naka daal ñu ngi si kawam mu ngi dox bu baax waaw mu ngi yëngu nànk-nànk dëkk bi fi neex na non neexul moom. Ah. neexul moom. noo gisee bàyyi ma ñoon xoyantaan. ah man xoyantaan la faral ndax Saalum Saalum la. Saalum Saalum yëpp xoyantaan ah, ah. la xamal loolu. ñoom ñaar nan nga leen gisee hmm. <laughs> de. mbër. ça va naamu. def. maa ngi baax a baax. yaa ngi ci kawam de. waaw maa ngi ci kawam gaan lii lees la gaan hmm. lii moom lañ defaree daal yi quoi. moom lañ defaree laa dagg nii quoi. damay seetaan laaw. damay man man. ah loo mooy sama mbër. moo loo. waaw dëkk parcelle. waaw walaay walaay. bàyyi ma ñoon laa faral. waaw man xoyantaan laa bëgg mu daan jël bu set moom laa ñaanal yàlla xoyantaan yàlla ko yàlla may nam parce que man xoyantaan dama yàgg bu may nekk xale bi nekk Saalum man xoyantaan moo nekkoon sama mbër moom laa daan support si mbapat yi muy wax dëgg yàlla bu ñëwee Dakar tey jii mu fekk ma Dakar gii dama koy supporté may ndam waaw moom loolu laa bëgg mu daan ko jël bu sedd guy boo xam du gaañ baax xam nga baax ñoon mag la léegi na yooyu tam <laughs> ah, baax ñoon mag eh, la daal lii la jëm Kéba Fall Kéba da ngay si àllam ndax xoyantaan. Saalum la dëkk. ñun daal Saalum Saalum ku dëkk Saalum rek moom ngeen faral. waaw. xeexoo Saalum ay bandi lañ. kon ñaari bandi nar a <laughs> waaw ñu ko koy am bu baax a baax. daal jigéen daal. waaw ñun jigéen ñi lañ fi nekkal. jigéen ñi ngeen fi nekkal. waaw dafa leer góor ñi nag. ñi dañoo nay quoi. maa la xamal lool. jigéen ñi bi ñu daal ñoo ko jox. waaw mais moo tax xam nga ñun dañuy liggéey ba pare nay suñ bopp. looloo tax quoi. yaa ma na a xam. dañuy calculer rek. waaw mais noonu la moo tax ñu ñuy kal rek. li waaw mooy loolu. jigéen ñi day yàq. non yàquñ buñ defee rek nga kontaan. Eh. bilaay. waaw ñun yàlla dafa def na ñun ay saalum saalum lañ te dañoo dëkk ak xoyantaan waaw kon ñun moom la ñuy ñaan yàlla mu daan quoi mais nag Baye Mandione moom wax dëgg yàlla dama ka fonk dama ka naw parce que nit ku baax la quoi waaw nit ku baax la nit ku am yar la am teggin waaw mais nañu may rek dégg nga nañu may ñu ñax ko rek xam nga ma gën a xam mooy. Saalum Saalum ay Gambien. waaw mais euh, xoyantaan dëgg la Gambie lay représenté mais Saalum la dëkk Kañmoor la dëkk te ñun Kër ma Madiabel lañ dëkk. Kër Madiabel lañ dëkk nga Kër Madiabel ak Kañ Mor sore wuñ quoi mooy loolu. kon il fallait que ñu jàppale ko yaa ma gën a xam. ñaf rek dafa leer. ndeysaan. yee daal waaye kilifa gi nuyu naa maa ngi lay fay. maa ngi sant bu baax. El Hadj Wade. Wade. waaw. jàkkaarloo Modou Lo Ama Balde noo ko gise neex rek jàkkaarloo bi day neex ndax man supporteru Ama laa waaw waa Pikine laa cent pour cent pikinité moom laay dund moo ne sama deret nan ngeen fas yéene teeru Modou Lo ci arène nationale Modou Lo ko may dara combat boobu li naqadoon pikin yëpp suñu diggante ak Modou bu kere gay def ñu koy fajal incha allah signature bi lu ngeen ciy xaar ah signature bi de dañ ko jox cër respecté ko ba kerek bés baa nag ñu def li war ci kàttanu yàlla waaw man noonu laa ko gisee. ama eh, du ko may dara. dégg naa mu ngi ci état de forme bu garaaw. dara ama xale la. moo doo ko mag. te xale day effacé technique gu mag. tax gis nga ni mu bëree Papa Sow. mayut ko sax mu xalaat. dafa ñëw rek imposé ko. kon tey buñ dajeeg Ama Balde. buñ dajeeg Modou Lo li ñu naqare woon yëpp dana danañu neex. kilifa gi nuyu naa la. waaw ah, lay fay. noo tudd baal Pen. man mbër nga woon xanaa. man foyee naa ko rek waaye yàggu ma ji de. waaye xam nga rek responsabilité rek xam nga mooy loolu xam nga gars yi bu la yaakaaree moom am na yi bëri yoo ci mën a continuer moo tax waaye nag maa ngi bëgg mbëri moom am naa ay mbër yaa ma gën a xam mooy loolu. Modou Lo Ama Balde. Modou man de waa Pikine laa ko a Ama laa faral de boo demee sama néeg effort Ama Balde laa fa def wax dëgg yàlla waaw bëgg ko trop nag bëgg mu am ndam ci kaw Modou Lo rek roi bi dem Pikine loolu laa bëgg waa Pikine yëpp xam nañ Modou Lo parce que Modou Lo roi bi mu ngi ko jëlee Pikine ci Eumeu Sène fas yéene koo téye bi ñoom ñaar loo leen ci loo loo leen ci xaar bi mu neex rek comme ni ñoo ngi ko doxalee rek Ama Baldé xale la bu ñëwee day day bàkku day day def lépp day fecci ay supporter am déw maa ngi sarana Bantamba barki déw Mourou Mbaye dem fa bu fa demee gars yi préparation bi di yëngal pour jàkkaarloo bi rek pour mu gën a neex affaire yooyu noonu Ama Baldé xale la jeune la mooy loolu moom suturaal ko defal ko jàmm defal ñu ñëpp jàmm waa di kontaan Baye Fall bi daal dégg naa la. kilifa gi. ma ne leen siiwul yéen pour yéen rek Wassare Lamb. Ah. yéen ngi def lu nekk ci làmbañ bi laay. ak seen maam ma def leen siiwul de. jàpp na ko dóor na daal na ko. Eh. moo neex nag. rak borom daaru. gay na ga si kaw si kanam rek. Ama Balde Modou Lo seen jàkkaarloo bi war a am samedi. nan ban taxawaay nga ci. waaw ñoo ngi koy waajal. am ñu Ama la ñu sopare moom. di ko ñaan yàlla mooy ko ndam waa Parcelles ñoo war a ñëw gars yi recevoir leen na leen recevoir jàmm salaam rek ñibbaat jàmm salaam rek jàmmam li fi a bañ amaat ndax ñun ay amaatoo lamb dañu bëgg a lamb te lamb rek la ñuy suivre ñu soñe jàmm rek moo ci am te ñoo ngi ñaanal ñu dugg ci bismillah maanaam jeex alhamdulilah rabbil alamin waa Parcelles ñëw jàmm ñib ci jàmm salaam ba jour ba amaa defal waay defal waay baax nag waxatul lool mais est-ce que tey lan la ñuy xaar ci ñaari mbër yi parce que bari na ci combat bi mu am est-ce du ñaari mbër yi am na ci wax yoo xamante ne ci communication boo xam ne buñ ko communiquer rek mun naa jur dara. waaw booy communiquer ñu communiquer jàmm rek comme lamb ji fi jaar rek boo ñaa tafale xam nga jàll fi jàmm salaam dara xew ci lu jàmm salaam ñoom lañ ñëw communiquer jàmm salaam rek ñu ñu def ko ci lamb fair play rek amaa dafa ko baas rek. waaw mu la mu la mu bàyyi muy def nag bàyyi sànni xeer yi quoi. ah, ah ko ah, gis non am na war koy def ay xam a si bale kon daan la su bëggee toog naa ñooñu ay gars yooyu noonu leen xeer. na bàyyi loolu waay. grand ziar naa. waaw delloo ziar ba. noo tudd. Ablaye. Ablaye waaw Ablaye. jàkkaarloo Modou Lo Ama rek. waaw di jaan Ama may ko ndam incha allah. Ama Baldé tamit. waaw Ama hmm. dëkk. Hmm. waaw waaw waaw. looy lu ngeen xaar ci ñaari mbër yi parce que d'habitude fi mu toll nii làmb ji nekk làmb joo xam askan wi yëpp ñoo koy xaar te làmb bari na fi mu coow yi nga xam ni yaa ngi koy dégg ci làmb lan boo doon ñaax ñaari mbër yi ci lan nga leen ñaax. waaw di la ñaax fair play rek si ñaari camp yëpp parce que parce bi euh, moom làmb toll na moment boo xamante ne instant bi ñu bëri ñoo ngi koy critique mais instant ñoo lay ñaari mbër yëpp ak ñaari encadrement supporter fan sa club ñu wane fair play bu baax a baax waaw loolu la lañu am si wax moom jaajëf liggéey ngay nekk fii di kii dama lay de ah lii laa la noo tudd. Abdou. sant. Touré. Touré am Balde. Ah, Ama Balde mooy sa mbër. waaw. eh de am na doole de. daan. de. xeex dóor mu daanu. dóor mu daanu mun naa. waaw Ama Baldé mun naa dóor mun na mu daan. waaw. lan moo la gën a neex ci Ama. ci ah, Ama. ah maa moom Ama suñu mbër la. <laughs> Ah, lan moo la gën a neex ci moom bàkku bi bëre bi xeex bi salaj salaj loolu ci gën a neex. moom. Ah. bëre bi. bëre Ama Baldé. waaw. waaw. nañ mos grand signature Ama Baldé Modou Lo seen face to face bi noo ko gisee. ah loolu war na mën a neex de ñoom ñaar namante nañ de. loo ci xaar. ah ñu def ko si jàmm rek mu jàll si jàmm. waaw. def ko si jàmm mu si jàmm rek waaw. boo leen doon ñaax parce que ñoom ñaar ku ci nekk mbooloo bu bari day takku day topp seen ginnaaw bu ñuy ñëw ci làmb ja lan lañ war a mën a indi ba jàmm mën a am ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm. waaw ah, ñoom ñaari mbëri rek. ñu ànd ak dal rek bañ a waxee tension xam nga parfois ñoom bu ñu waxee tension rek supporters yi amul xel moom dañ leen ciy ñu ànd ak rek waaw. man Ama. mooy sa mbër. non du sama mbër man ci laam mais Ama moom wax dëgg ndox ma moom laa faral di combat bi. moom moom jël na jël na raw raw gàdd gi xam naa ne support gars yi yëpp jaaykatu daal yëpp Modou Lo Ama Baldé mooy seen. <laughs> defar daal yi. non non demeewul noonu sax xanaa peut être li nga li laaj dafay tombeek rek mais kii xam nga ne 100 pour 100 bu loola boo ko laajee moom dina ci wax lu leer nañ. waaw kan ma bàyyi la nga jàll si moom rek. 100 pour 100 kan. <laughs> Ah? man moom vraiment nekk si làmb moom ma dugalul si làmb moom. mais xam rek temps yi moom damaa xaw kii nii rek. waaw mu sedd nii yaa ma gën a. dëgg <laughs> ah, ah fi. doo nuyu madame ñeme naa laa dékk micro ba ngay pare doo nuyu madame. Ah, moom xam na ne saa su ne maa ngi koy nuyu. Ah. parce que moom ci moom laay dox waa. <laughs> ayca. grand nuyu naa la. waaw maa lay fay bu baax. Ama bu def nànk rek te xam ne sël bu ndaw lay dajel quoi. Hmm. six ans euh, six mois la def fan. France waaw. kon boog mu def nànk te xam ne surprise bi mu gis ci Tapha Tine contre Tapha gisoon ko ci contre kan. Euh, Malick Niang aussi. boobu it dinañ ko gisaat ci contre Modou Lo. bu ñu jàppee ne Modou na ko daan dañuy nax seen bopp. Ama Baldé dina ko daan te boobu chance comme li mu wax rek nee na mo euh, ku ku ku dàq bëre dàq xeex. yàlla na la yàlla may ndam boobu amul euh, chance Ama Baldé loolu ci loolu la koy daanee. gëm naa ne moo ko mën moo ko ëpp doole. Giraar noo def. Ah, maa lay fay. Ama Baldé Modou Lô. man Modou Lô la ah 100 pour cent. gars loolu problème dañ dee yàgg moo tax. Hmm. waaw. looy xaar ci seen ndaje ñoom ñaar seen ndaje ah premier festival ñu def fair play rek ñoom ñaar xam ne ay doomu Sénégal lan ñëpp benn lan waaw ñu daal di préparer combat bi bu baax a baax te Ama maa ngi dégg muy wax naan ay ku dàq bëre ku dàq xeex yàlla yàlla may ndam ah loolu ay wax la rek mënuloo ma dàq bëre. wala nga xeex. non xoolal ñoom seen ñoom seen i combat. non non loolu amul benn problème te bu bis baa ngay xam bis baa ba arbitre sifflé nga xam ne lépp dëgg la. amul leneen lu ma ci wax. xeex ak bëre lan moo ci seen avantage. ñoom ñaar lu seen avantage comme ça ñoom ñaar ñëpp bu xeex amee mun loo dominer ko bu bëre amee mun loo dominer ko lépp mun loo moo ko dàq. waaw loolu ay wax la rek ay ko dàq bëre dàq xeex loolu moom moom wuru ko wax. wur wur wur wax waxee foofu sax ay ku daq bëre dàq xeex. non Ama bi la jël. nee na waxul ku dàq xeex ku daq bëre waaye ku mën yàlla na ko yàlla may. gars yi ñëw sëq rek mu waan ku mën waaye ku dàq bëre da nga xeex lañ njëkkee lañ njëkkee dafa xamul lu muy wax rek ku mën fekkee mën yàlla baax na yàlla yàlla may ndam mënoo day daan incha allah. jaajëf. grand ziar naa la. maa ngi delloo ziar Aliou Mbaw waaw noo gisee signature Modou Lo Ama ah signature bi waaw kontaan nañ ci torop waaw que que daal mais daal bu so bu jour waaye yàlla yàlla def Ama Baldé wàcceel ñi gan gi daal loolu ñun moom ay fans Ama lañ moo du def daa mel lu mu góoxal ah waaw ba tey rek ñun moom ragaluñ daw coow Ama moom ku ko xam xam ne moom mbër mu fierté la ñeme na def gëm na ko bu jour waaye ñu ngi koy ñaanal ci barke Sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla may ko ndam sedd si doole Serigne Touba. yaa ngi ci bëgg nañu waa ñu ci kawam waaw. xaalis mi ngi yéen waaw jox leen ah da ngay xaar laaj ngay wax ci sa yàlla sant yàlla. allahumma amiin ñu bokk. looy defar ay pochette. pochette ñi di kii yaa koy doon. waaw daan naa fi jaar de. waaw. pochette yi cher na. non seerul. ay pochette ñaata. ah sans waaw sans dépasser bi nga bëgg quoi. noonu la demee. oui Ama Baldé seen signature ñoom ñaar dañoo war a daje. Ah. war a fas yéene laale seen première face to face nan nga ko gisee. ah loolu moom duñ ko gisee lenn signature bu nekk jaar na fi Modou Lô Balla jaar na fi signature bu nekk am na fi leen daal la ñuy lancé ña fay dem ñu ànd ak seen xel te xam ne ñaan ñi signature ak ñaan ñi war a jàmbaarloo doomu réew mi leen ndam li mun a génn senegal ñu ànd ak fair play parce que toujours làmb daam ñu siy ñëw ñoo xam ne nii seen kër dañ koy tëj pour ñëw si làmb ji wala signature bi te ñenn ñi léegi dem nañ ba dañuy xa gàddaay làmb làmb daal. parce que yenn yi li si am violence yi agression yi surtout ñun ñun xam na li mu demee parce que ñun fii la nekk en face stade bi. daanaka lu fi xew lu bari dañ si teg suñu bët. te dañuy liggéey sax yenn saa ñun ñuy ñuy wàcc parce que lu waral lool ay violence ay xeex ay affaire yooyu noonu. te pourtant ñun nekkuñ si làmb joo nekk suñu liggéey. te loolu tamit àq la dafa war doon loo xam dañ ko war di sóoraale surtout ñun ñii fii bu làmb amee bu dóoree Lac de Moselle tey ñun ñëpp da ngay gis ñi daw muy mag muy kilifa wala soit bu tombeeg leen sax doo liggéey te loolu tamit doon na loo xam ne daal doonu lu ñu neex quoi. kon xale yëpp ñu ànd ak yar ak teggin dugg xam ne sport la fo mais si sport noonu la woon sax da ngay ñëw sangu ba set xel ñu neex nga toog ton seetaan làmb bu jeexee jeex na parce que toujours chaque dimanche làmb am te mbër mu ci daanu tamit ëllëg di nga bëriwaat noonu la demee daal. ah man de moom état bi su ñu dóoree Dakar mos a bi su ma xëyee tamit du mën a liggéey si ndax sama dërëm bi day métti quoi. day métti waaw di nga may dóor fi yenn saa ma tëdd fii sama dënn bi di métti quoi. Oh. am problème mu ñëw si. waaw damay am problème mu ñëw liggéey si. lan ngay xale yi nga xam ne dañuy ñëw ci làmb ji des fois ñu indi ay problème ba lacrymogène yi ah, wax dëgg yàlla aw ma si wax hmm. mooy seen seen seen kii parents yi ñu téere daal ci kër yi bu baax. Hmm. waaw ndax làmb ji daa wóorul moom. am nga mbër. <laughs> aw ma mbër. yow kay li tax booy di la dóor ak mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax gis ngeen mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci stadium Iba Mar defarkatu dàll yi li ñuy jot a ci combat bi nga xamante ne dox na ci diggante ma joon ak Xoyantaan wax nañ ci diggante moo du loo ak Ama Baldé ñuy ñaan jàmm rek mbokk yi di leen jaajëfal bu baax di wax ni gis nañ rafetlu bi gis nañ kontaane bi gis nañ bëgg ngeen bëgg wasaare làmb di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba incha allah ci beneen xew-xew làmb eh eh <laughs>